président te mu teg ko fa comme son élément c'est kan? Cheikh Omar Diagne élément wa kan Ousmane Sonko dedet Cheikh Omar Diagne kee la ma jox la information ah liste élection législative bu 2017 hmm bu Cheikh Omar Diagne xam nga xam Cheikh Omar Diagne amoon liste élection législative wa wa ñu ñu baj ko Ousmane Sonko ko ko sant mais mais digënté bi est-ce que ñaar ba tay ñom ñaar dama né Ousmane lépp lu euh, Cheikh Omar Diagne def Ousmane Sonko ko ko sant ba ci affaire këru diine yek limi wax yek. Lepp mais mais mais Ousmane Sonko ñu wax askanu Sénégal ni dañ koo changé loo tenue vestimentaire am à partir de 2017. dañ changé loo. tenue vestimentaire bi solinam. mooy mooy foo cëkkal yi ngay solo soo ko so soo ko soloo doo am dara Sénégal. Euh, mais mais ñëwal ma ci affaire yow yow tenue vestimentaire lan la moom nu mu daan sol. mooy cëkkal yi di ibaadu ibaadu. mais bien sûr ak mbaxane bu ndaw bi. Ah, ak ñetti karaw yu ma bàyyi fi sikki loolu la mooy yi ma naan jullee fee ca ca jàkk ibaado bi ba mu ne ma xam ne ñooñu amuñu buzz mu ne xaar ma arrière dem ci beneen pas mbàkki mbàkki dañ ko ko demandé je le témoin de El Hadj Malick Ndiaye qui fut le premier kan kuy El Hadj mandataire mm. kan la Malick Ndiaye moo njëkk nekk mandataire u national Ousmane Sonko kooku anamu moom mi ngi fii mi ngi ci passé ba tey mi les jours déedéet ah bon nek tu Pastef mi ngi tuddu ñing koy wowe Papino muy sama xarit ah. kan mo mo mun wax Ousmane Sonko ban liste la démé 2017 mu ne fàtte Ousmane ndawi askan bi la démé ki ki moy moy moy moy mooy kii mun na la rousse malik ndjay momu le ndaw askan kan mako mom mom non coalition la won ah. très bien paa yu sonn moy mooy jall jaaru moy yooyu radio paa yi malik ndjay min Papino mi nekkon ah. mandataire am waaw moo négocier poste député plus fort restam pour mu mën a jàll assemblée. ah ci la duggee. ci la duggee avec la complicité. de de Mohamed Ndiaye. maanaam Mohamed Ndiaye mii la qui di wax le fils. de Mbaye Ndiaye. de Mbaye Ndiaye. bu PDS déedéet. Mbaye le vieux PDS bi décédé. kan. vieux le vieux du PDS tam dëkkoon biscuiterie pas Ablaye. Ablaye Fay. Ablaye Fay. Mohamed Fay. wa Mohamed Fay. le fils de. Ablaye Faye. Mm. qui était mandataire de Mamadou Diagne Fada. Amadou Faye ngay wax yow mom lañ koy xamé quoi. Amadou Faye lañ koy wax ci politique quoi. waaye lay wax ni yow mais ça c'est mais ça c'est l'histoire ça. c'est-à-dire. mais Sonko mi mais Sonko qui Sonko négocié dit ji. Mm. avec Mohamed Faye. Wa. le fii le mandataire de Mamadou Diagne Fada. doomu doomu Ablaye Faye foofu Ablaye Faye. pour Ousmane Sonko meuna a pour prix fort reste. 2017 ba. mooy 2017 ba. Ousseynou nag kii tuy. Ah. kooku. moom moom kii fay. moom papino moomu. papino waaw. kooku jour boobu la def croix ci Ousmane Sonko ba mu xamee ni. Mm. lii muy wax ni yëpp. gëmu ci dara parce que li mu gëm mooy takk tubéy bu gàtt.

Ousmane Sonko li muy def mooy lu góobal santaane woon. Mhm. lu fen bi gën a rëy. yëf yi gën koo gëm mouton yi ak gunóor yi. parce que su ne woon compte ba un milliard a ca ne. Mhm. kenn du ko gëm. Ah, mais il faut mu taw yi. mille milliards mais loo leen seetluwul ci vidéo bi. temps dafa laa laalaake nag. loo leen seetluwul ci vidéo bi. waaw amul trente personnes yu tàccu.

moo tax ñu naan ko usu wàññil tuuti mais même même officine que dégg naa xam bizarrement démb même les officine ko ko ne dégg naa ñu ñu koy ñu koy jéem a layal naan non dafa jum ci zéro yi euphorie beeg yi mu wax ma ne non non non juumul ci zéro de moo ko li li mu wax loolu la usu usu nag daa toj lee ah non na wàññi non su na wàññi usu wàññil usu wàññil zéro yi wàññil zéro non dose usu wàññil dose bi wàññil dose bi wàññil zéro yi dose bi usu wàññil zéro yi xam nga on a trop de kàcc trop de kàcc quand même mais c'est hmm. que moom nag extrémiste mu def <laughs> communication ba pare muy def massage sax du dàngu benn nit massé ko kat de ay <laughs> lay demandé xale bi day rawa extrémiste la xale baa ngi sax tey faaw moom c'est que moom c'est que usu usu moom léppam extrémiste la bu nañu def benn massage benn mai moom mu jël massage quatre mai moom bu nañu di di kàcc di fen naan milliard moom mu ni mille mille plus de mille milliards ah usu usu usu yaram ñëw non su yaram ñu Aïssatou ñi ngi toppee Ousmane Sonko. mu wax ñu fu ñu mille milliards yooyu nekk. fan la dugg waaw ah, loolu parce que li mu wax. mooy hmm. il a le numéro du compte bancaire. il a le nom de la banque. yàgg nañu wax ne ngi xaar numéro compte bancaire. ak bi banque ba bi banque ba ak ba. ñi ngi xaar ak ki ko moom. ki ko moom ngi xaar compte bancaire bu mille milliards yi nekk. Mhm. parce que yaakaar naa ne nekkul ci ñett banque yi ma cité fii yëpp. nekku fa.

Ah. contre Ousmane Sonko. Salim maa ngi dagg. et on prépare une plainte contre les médecins. pour lan. l'ordre des médecins du Sénégal. qui est on. nous les citoyens sénégalais. parce que ah, man de ci laa bokk tamit man man man bu citoyens citoyen parce que soxna si. Hmm. on a été dupé ici. Ah nax nañu parce que nee nañ ñu. ki daf ñu hein? dafa am insuffisance rénale muy fièvre bu garaaw. dëgg la ak ak hypoglycémie donc ba am ay nit yu ci dee te li ñu ko wax mooy fiche médical dossier médical bu malade man xaw ma la ko moo defar dossier médical yooyu mooy mooy ku mu namee léegi xaw ma lan donc l'ordre des médecins mais nomination bi na ma defe ni moom dañ non kooku il est nommé directeur de l'action de la santé bokkul ah, euh, ki ah, sant Wade te mu nekk léegi kii kii kooku moo defaroon dossier ba mu nekkee hôpital pourtant moom teeloon na wax sénégalais ni dara jotu ko bi muy commencé politique maintenant je vous dis je vous dis li ma wax c'est trop sérieux Saliou parce que notre vie Saliou jëlama bii dugalama parce que l'ordre des médecins dugal ko yónnee naa la ko waaw ñu ñuy jox ay faux documents médical faux dossier médical xaar ñu ni waat ko waaw yoo xamante ni dañ ci wax maladie ci nit te maladie boobu amul soo yabaatee stratégie la non maladie imaginaire la donc les médecins qui étaient à l'hôpital principal sont interpellés. Mhm. L'ordre des médecins de New York, par rapport à cette affaire. Parce que c'est trop grave. Mhm. nit ku nekk ci diggante dund ak dee. waaw nit koo xamante ni da nga da nga da ñu def dañ la ne da nga am dossier médical. nga paralysé nga paralysé ben côté. <laughs> Salut, sarama ci vidéo bay. nga paralysé ben côté. xàmmeetoo kenn too kenn ordre des médecins war na wax. mais mais mais gis nga nu ko ana waxee. nii ko su nit ñi ñi daal dafa bañ daal.